ñu fas yéene leeral benn leçon boo xam ne joxoon nañ ko ñu ko doon sàkku ci xam-xam ci wàllu xawaatim fi ñu tàmmaloon ak ñoom muy leçon bu yàgg nag waaye ñu bëgg ko laay bi mbokk yi ci internet ko defee dafay ànd ak leeral bu matale ñu fas yéene ko leeral waale ci wàllu olof muy masalatul xasaal yi kon leçon bu ñu jëkkoon la joxe moom lañu indi muy masalas lesaanam ak nañ ko génnee ci ak njabar ak ñi doon wax ci biir njabar ci la masalas nekk wàllu xawaatim njabar la yëpp dañ ko bëgg a jamontaay kon bisimilah mbokk yi ngeen toppal ñu ànd ak yéen bisimilah suñu cameraman waaw mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bu ngeen seetloo bu baax leson bi jaxawar nañ ko bu yàgg waaye dañ ko bëgg leeral mbokk yi ci internet bi waxoon nañ leen ni leen lii mooy musallas lii mooy cosaan yi ñeenti ko ñuy bokk ci moo nekkoon musallas waaye nag li tax ñu ko wax ko musallasul xasaal al imaamul Xasaali di bu mag rawat na ci xam-xam bi ñeenti tabia yi ñëwee na ñëwee nag ci lañ doog a la doog a tudd loo xam a ñàkk ndax ci la yàlla composé doomu aadama te ñeent yëpp nag bu mu dajee ci doomu aadama bu dafay dajaloo nit ki mën a nekk ko ànd ak dal mën a def mën a bàyyi te du lor kenn waaye ngelaw kase bu ñëwee dafay yàq sawara it noonu boo topp bu dee moom dong rek yàq da daal yomb ay bu ci imam Ghazali yokkee ñent tabia yi mooy yin composé doomu aadama moo tax mo nekk musalatu fasal yi moo nekk yi ñeent yi mu ci yok nak moy nari yu te moy sawara trois bi yu ta moy suuf hawa yu ta moy ngalaw ma yu ta moy ndox ñent yi nag moo composé doom aadama tay mo moo composé aduna moo tax musalatul Ghazali yi kenn génn ci su ko defé moo tax ñu wax musalatul Ghazali yi ngir ñu demam téré ko génne ko ci li nga xamni mom moom wax ak njabar dañ ci génne yàlla yi ci composé ak ñaan giñ ci ñaan ci olof incha allah léegi boo xoolee fii mën nañu ak kun bannun jàqun datun xaqun waxun sallun xamun taxun mooy buntee lii ak façon compte la rek waaye boo xoolee fii boo bu ñu dóoree chiffre yi fii dangay gis ni chiffre yi nga xam ne moo ci dem un la 2 3 4 cinq 6 7 8 9 chiffre yi moom moo dem ci biir kon nag foo ko wàccee daf lay daal di jox quinze boo wàccee fii daf lay jox 15 yow mi yow mi yow sa calcul calcul na 2 plus 7 plus 6 daf lay jox 15 9 plus 5 plus 1 daf lay jox 15 4 plus 3 plus 8 daf lay jox 15 ba léegi ñetti kees yi nag quinze boo ko boo ko fois 3 daf lay jox 45 moo jàpp aadama moom laa defoon fii 15 yi foo ko wàccee awara lay jox mais boo boolee yëpp nag boo boolee 3 maanaam 15 boo ko boo ko fois 3 daf la jox 45 moo jàpp aadama kon xawa ci biir aadama la génn bu ngeen xoolee bu baax nag fii nii li ngeen defal moo nekk lii mooy moo nekk ci biir abazaha moo nekk ci biir su ngeen gisee bu baax fii mooy ci konte alif moom benn la baa ñaar la jum ñett la kon nag mag ñi ngir ñu wal leen ni ñun ci mag ñi lañ toxalee xam-xam mag ñi niñ ko daan jàngalee lañ leen bëgg a leeral boo xoolee fii alif benn la mag ñi dañ daan wax ni bismillah yi noo ngi sàkku ndimbal ci barkib alif alif benn la mu jàpp aaya alquran allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mu ñëw ci baa bismillah yi noo ngi sàkku ndimbal ci barkib baa baa ñaar la aadama ak xawa ñaar lan ñoom ñu doomu aadama yëpp mu jàpp ay quran bi wax ba badiihu samawaati wal ardi ba léegi mag ngi di wax bismillahi noonu sàkk ndimbal ci barki jiim jiim ñett la jàkka yi ñett la muy makka madina ak bayt maqdis ci ne ko mag ñi daan composé mu jàpp ay alquran jaahil mu malaayka di rasulan bismillahi noonu sàkku ndimbal ci barki daal daal ñeent la zahaba yi wutu rasulullahi sallallahu alayhi wa la muy Ababakar Umar Usman Aliyu kon fi ko mën ngi composé fu ama am solo la ba léegi bismillahi noo ngi sàkku ndimbal ci barkib xëkubeer xëkubeer juróom la waxtu julli juróom la tisbaar takkusaan euh, waaw suba tisbaar takkusaan timis gee mooy juróom waxtu julli ba léegi bismillahi noo ngi sàkku ndimbal ci barki waaw waaw juróom benn la penku saalum muy penku sow salum gànnaar ak asamaan ak suuf yooyu ñooy xibla yi kon xibla yi juróom-benn la am nañu koy kii ñeent nag waaye boo ci boole kaw ak suuf mu nekk juróom-benn mu jàpp ay alquran ñu wax wallahu min waraihim maayatun ba yi nu ngi sàkku ndimbal ci barke racine racine moom juróom-ñaar la waaw racine juróom-ñaar la euh, te bis yi juróom-ñaar la mu tàmmulee dibeer altine talaata àllarba alxames aljumaa yooyu ñuy bis moo jàpp ay alxuraan bi suy yi na li naa si kon da ngay gis ni lii ci ay ay alxuraan ki turu yàlla moo ko jàpp ba léegi bisimilah ñu ngi sàkku ndimbal ci barke alam ko juróom-ñett la malaaka yi yéenu xaalas juróom la muy fadat wa yaa ilu wa dat fa yaa ilu wa sat yaa ilu wa xat ma yaa ilu wa kam yaa ilu wa zam ka yaa ilu wa sas ma yaa ilu wa sanj yaa ilu juróom-ñett malaaka yooyu ñoo yéenu xaalas nga xam ne ñi amna borom xamne ci liggéey lu doy waar lo xamne ne képp koo xam bëgg nga do télé sa giiru dund soo ko euh, amna am koy euh, utiliser am waxtu yo koy naan tok ci séeru wañ do télé sa giir dundu balay kon ñu ak ci ci nafeelu bunt bi muy bismillahi ci barke too tànk mag ji di ko ta taa taati dalu moom juróom-ñeent la te waa kër yonente bi juroom ñent la kon nga gis ni fi la nek lepp mu japp ay alxuraan ñoo xooxee zahir man salaam zahir waaw kon dangay gis ni fii li fi nekk yëpp ay ay alxuraan lañ ko ci mën ni ak ay turu yàlla ba léegi kon ñu ñëw ci turu yàlla yi nga xam ni fii li fi nekk alif bi mooy benn alif benn la mooy allahu baa ñaar mooy baddiam ji ñett mooy jaamiu deel ñeent mooy daimu hal kubeer cinq mooy hëdi waaw juróom-benn mooy wahaabu racine juróom-ñaar mooy zakkiyu xaalonko xaalonko di euh, juróom-ñett mooy akiimu ta tànk ji juróom-ñett moy naw moy tayyibu kon da kay gis ni fi li fi nek lepp lepp ay tur yalla la yuñ composé ni ko composé na dajala ko def ko ci bi masdarul ko say moy xam xamni xam xamako lal soko ko man nga jëfëndiko lu ne ci ni nak ci la mag ni di sukkandiko dañu def ay ñaan leçon yoy bima ci tegoon moy waxol na len tekalon na dañ ci leçon comme bu fekkente da nga bëgg bii mooy toppoon comme ñu dag xadim ñu bal ma ci tour yi ma indi won tam na ra feeñ ci ki bi ndax ba ma koy jangale du won li bi tax ko na jox jóg waaw tuur yi ma indi da tay ko ko kenn ci ma doon jangala tek tegtaloo won rek indi aw turum ak tour way juróom kon bu fekkonte ni ma indi len nak fi nga xam bu fekkonte ni danga cee bëgg ñaan jaare ko ki tal sam ma ñu wax tazuna kamun ali nasum qahar te mu jàpp latif boo darbu ci set nga indi aaya alquran bi nga xam ne mooy qawlul haqq mu jàpp 442 katam 1903 la jàpp nga indi tur yi ak tur yaaye baay bi mu jox la 284 loolu lépp nag soo ko jo soo ko kiiyee daf la jox 1629 nga jël ci lim bi nga soxla wàcce ko dugg ko bi 539 540 541 542 543 544 545 546 547 kon bii amul kasra léegi nag jamono yii bii foo ko wàcce rek foo ko wàcce daf lay jox 1529 moom lay doon noonu fii ci ñi ma ko doon jàngal ñi ko doon gis ñi nga xam day ñëw fii di jàng ci xam-xam asar ñoom nag ñoo jago toll bi waaye jamono dafa dox ban bëgg koo yaatal mboolem ñu nekk ci internet ñu mën cee jot kon boo jëlee 540 aka yow jëlal nga calcul quarante plus 545 plus 544 daf lay jox 1629 moo nekk nii soo ko jëlee fii nii 542 ah 547 545 lii la lay jox 1629 waaw ba léegi boo ko jëlaatee fii jël 641 plus 543 plus 545 ba léegi lii la la jox ba léegi foo ko wàccee fii la jox kon lii mooy xaatim boo xam ni dafa jub kon mbokk yi ñu ngi ñaan ngeen abonné ci chaîne bii nga xam ni moom la ubbi ngir li may jàngale fii ci xam-xam asaar ma koy jottalante ak yéen fas yéene naa nag indi leen ay xam-xam yu am njariñ ci wàllu asaar ba ci walu xam-xamu bidiw kon daal mbokk yi dañuy yem eh, ak fii yéen bañ vidéo bi gudd leen ñaanal jàmm beneen yoon di sàkk ngeen dul ñoo ñaanal والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته